amati mbégteeg bànneex si topp ngeen ñi topp ñoo ko gisandoo noonu fan bu campagne élection législative yi nga de ña ngi koy daal di door ànd sa ki nga xam le premier ministre Elimani Jarunju Ousmane Sonko ñu nono que noonu ginnaaw nag si démb ba mu toja rajax fa nga xamante ne si de moo di Thiès Mbour rek mu ke rajaxe usman kooke di Ousmane Sonko naka xëy si ñaareelu fan boobee tamit jubali fa nga xam ne moo di suwal ak yeneen gox Fatick ak gox yépp rek nak si tey ji mu nar fa jaar amal fa ay caravane amal fa ay mitin yu am solo mom ko ki di la premier ministre Elimane Diarounde Ousmane Sonko ñu nemmeeku naka si tey ji ci suba gi dal fepp fu mu jaar rek ñu romu na rek am ndiran mo kay dati top mbolo mi population bépp daati génn ànd ak ko ki di Ousmane Sonko mu nek nak campagne bu xamana si ji ma kay batar normalement patriote yépp rek daa si and ak mom kontaan bu mat rek ndax lañu gis dal dati na dal dalagul rek seen nopp xel ndax saa bu génnee rek Ousmane Sonko nit ñi rek dañuy gën a euh, féddali seen mbëggal si moom fedd féddali tamit seen kóllër si moom ndax saa su rek bu génnee na ni gis nit ñi seen i réaction nas koy toppee mbooloo mu takk lool ànd ak moom euh, topp si ginnaaw wala nag day firndeel na ba tey rek Ousmane Sonko ma ngay woy di dess ci xol yi nga xamantene ci ne mom ñoo leen a faloon si élection présidentielle yi ñu genn tegg leen si bopp reum mi 54 kon na yaakar da bu tourner waté wara a wat bat dagan bat askan yi pour rek am majorité fafe sa ensemble national yaakar na nak population bi seetaanul leen ta bayiwul leen ci ba rek sa suné ñu némé nemmeeku rek sa bu genné mbolo mi das kay dar top ko ànd nag moom ke di Ousmane Sonko ñu némé ko nak ci tayji kon nak ñaarelu fanu campagne bi yaakaar kar na ne kon nag maa ngi koy daal di amal di wër ay caravane si ay dëkk-dëkk yu wuute moom kookee di Ousmane Sonko amal ko nag mbooloo mu ànd ak moom saa bu egg si si dëkk rek accueillir ba ak nas kay dalale nas kay teeroo rek ba tey may wan na rek ba tey ñoom xel yi ñu ngi des si ki nga xam ne moom moo di premier ministre Ousmane Sonko di wër di def battre campagne